maa ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp ak ñuy déglu ci nuyu population département Mbacké yëpp euh, woote point de presse tey ngir d'abord sant population surtout commune rurale bi muy commune rurale bi ñu am ak xam ne contrat bi ñu amoon ak président de la ñun def nañ ci lu ñu war communes yëpp sur les quatorze communes rurales euh, treize yi gagné nañ ko largement loolu moo taxoon ñu ne dañuy woote point de presse maire yëpp ñu fi toog euh, am ñu ñu leeral aussi ndax euh, ku ne xam na ne bi ñu duggee ci élection yi investiture yi bi ñu investiré dafa mel ne commune rurale yi commune rurale yi amuñu ci woon benn cër budul ay suppléants yoo xam ne mooy soxna Noé Diouf Madina ak Cheikh bu Kayel jàpp ne nag euh, loolu ñun ñëpp dañ ko naqarlu woon waaye teewul ñu amoon engagement ak président te façon yéene engagement bi ñu jëloon ñu fexe ba niñ ko waxe woon ñu ko noonu yàlla defal nañu ci sutura euh, ba ñëpp gagné nañ seeni commune tey commune rurale yi rek am nañ différence ak coalition gagnante bi nga xam ne moom la ñuy waxal ci département bi différence boo xam ne mat na douze mille sept cent cinquante sept yoo xam ne ci commune rurale yi la nekk kon ñun lañ ci waroon def nañ ko xamaguñ ba xam dañuy gañe département wala duñ ko gañe waaye li amoon solo daal mooy ñun lañ waroon def def nañ ko léegi nag kon day jot nag ñu wax li nga xam ne euh, war naa am itam nag ndax ñun ñëpp ay maire lañ kenn ku ci ne fa nga nekk population bi ñoo la fi teg tey ñoo la jàppale ba résultat boobu mën a am kon jot na nag ñu itam ñun laaj laajal population bi li nga xam ne itam mënut a ñàkk ci population bi muy d'abord ñu di jox seen cër yu mel nii bu ñëwatee parce que euh, représenté population bi day dafa jaaru ñu am représenté euh, ñu leen représenté ci yu mel nii muy investiture ak yeneen ak yeneen waaye itam jàppale maire itam li nga xam ne moom lañ jigee ak population bi ñu fexe ba loolu itam di sotti ku ne xam na ne communes yi seen doole bariwul li ñu yaakaar mooy euh, ay programme te programme yooyu mel na ne euh, département Mbacké xaw na ci euh, néew doole lool kon jot na nag président bu bëggee ëllëg tendance bi nga xam ne moom mooy mooy mooy am ci bi communes yi gën cee mën a jouer jàppale communes yi communes rurales yi ba nga xam ne parce que loolu mën naa nekk je loolu mën naa nekk ndax Euh, population bi voté wuñ te lu ci bari xëy na moyens yi nga xam ne maire yi am nañ ko ci élection yi néew na trop parce que bu ñu xoolee comme comme comité électoral bu ne li ñu leen joxoon daanaka maire bi dafay joxe ba mu jeex mu mu muy làmm poosam di ci liggéey te joxuñu leen sax ay oto yu ñu liggéey ci campagne bi mm-hmm. kon loolu euh, jot na nag ñuy corriger yu mel noonu ndax Euh, xëy na dañoo topp dëkk Touba nga xam ne fi la population bi ëppee waaye jaaru na itam nag ñu jox cër communes rurales yi nga xam ne bu ñu soxlaa ñoom nañ ci war a taxawee dañ ko dañ ko dañ ko ñu taxawee loolu daal ci gàttal euh, man moom moo taxoon ñu bëgg a woote conférence de presse bi euh, bu ñu amee ay laaj itam mën nañ mën nañ mën a tontu ci laaj yi. salaamaaleykum. est-ce que ñu ngeen ñu jox yéen seen chiffre en terme de votants seen coalition ak a xool ba xam. waaw nii äh, am nañ am nañ chiffre yi mais pour pour pour euh, lu lu lu tënk rek. dañoo ah. différentiel bi ngeen ñu waaw nañ xam ci yi man na man man nag mais jëluñu ko woon bi ñu ñëw mais différence bi moom différence entre topp moom lañ moom la moom moom moom lañ amoon. moom la ñu yor fii nga xam ne moom lañ leen comme type par exemple am na différence 835 voix euh, Kayel am na 844 voix Dendey am na 922 voix Touba Mboul am na vingt 922 voix Ngay am na 1102 voix Taïba Cekkeen am na cent 384 voix Daaru Nahim am na 380 300 bibliothèque ak MC différence différence bu différence de différence bi yow si nga am ci voix mais différence bi mooy 384 voix 384 voix mooy tey différence entre ki jiitu ak ki ci topp Daaru Naïm 392 voix Sadio 3025 voix Misra 862 voix Dioumane 373 voix Madina 608 voix Taïf 2150 voix Dala 300 200 différence. différence je dis bien différence. ah différence. 2150 voix Dala Ngabou 338 voix soit 12 757 voix ci commune yëpp. loolu mooy différence bi nga xam ne moo dox diggante coalition gagnante ak benn bokk yaakaar. kon mel na ci quatorze communes rurales yi benn commune lañ lañ lañu ci gagné muy Touba Fall voilà. waaw 46. 46 46 fois. sëñ bi dafa mel ni maanaam euh, appel bi ngeen lancé vraiment euh, ak artu la ndaxte euh, seetlu nañ ni PUDC programme boobu mu tënk ko réew mi mais. département de Mbacké daf ci dafa mel euh, ne nañu réaction par rapport ak lii ak ak ngeen di ci mur bi mu fàttaliku euh, commune commune rurale bi ak population waaw mën na mën nañ ko tuddee artu mën nañ ko tuddee appel parce que euh, day day day day loo xam ne lu war a am la muy ku ne xam na ne loolu moom ñun ñëpp ki ñu ko waxoon mooy département Mbacké ci première phase PDC dañ ko fàttewul euh, président jëloon na euh, décision ne dafa dina dañ ko corriger boobu ba léegi nag am na yu ñëw di ko di ko natt muy ay forage yoo xam ne am na ci ay dëkk yu ñu ko wax am na dëkk yu ñu wax mais bu ba léegi travaux yi pratiquement commencé wu loolu euh, xëy na ci campagne bi ñuy daal nañ xel population bi ne loolu dina am donc li ñuy wax rek mooy toujours travaux yooyu nga xam ne walla euh, chantier yooyu nga xam ne euh, wax nañ ko ñu fexe exécuté ko population bi tey dem yokk ko parce que liñ ci andi woon itam dafa tuuti par rapport ak li nga xam ne moom la département doon séenu ci ay forage ak ci ay ay équipement yeneen yoo xam ne euh, communes yi soxla na yoo xam ne communes yi soxla nañ ko parce que programme bi dafa laal ci yu bari ay piste électrification rural ak ak hydraulique te loolu lépp mel na ne liñ ci indi ci département li néew na trop par rapport ak besoin yi nga xam ne moo fi nekk voilà. waaw waaw sëñ bi nan la nga xam ne moom lañ euh, constaté ci ñu ci département bi muy comme Touba Mosquée ak euh, commune. Mbacké ñun mën nañ ci am jàngat parce que ñu tamit euh, bu ñu fàttali même bu fekkee dañoo nekk ci commune rurale yi dañoo nekk aussi ci ci ci Touba ak ci Mbacké parce que man mii mën naa ne campagne électorale bi euh, benn bis laa ci dem commune bi kon li lépp ci biir Touba laa ko doon def malheureusement nag fi ma doon liggéey nga xam ne fa laa gënoon a mooy sama deuxième base à part à part après Tip muy Darou Minam voté wuñ donc euh, centre bi ubbiwul sax mais li nga xam ne mën nañ ko ci wax rek mooy d'abord euh, ba tey da ngay dellusiwaat ci investiture yi am na problème xëy na loolu moom euh, après danañ ci danañ ci danañ ci wax ak ñi nga xam ne ñoom lañ war a waxal li nga xam ne moom xalaat nañ ko ci mais liggéey bi itam. parce que commune Mbacké li njëkk a doon seen problème mooy responsable ya fa nekk nanguñoo ànd. division te division bi donc division boobu. fusion bu amee ci dëkk da ngay jaaxal ñëpp kon loolu euh, doonu lu gën ndax population bi aussi buñ bu kii jëmee fee kii jëm fee dañu mujj jaar ci digg bi au ñu bàyyi leen bàyyi leen fa ñoom ñaar kon loolu loolu bokk na ci li nga xam ne moo moo gën a yàq sur yàq surtout Mbacké fii itam à Touba man li ma gis ne moo fi am coordina problème coordination moo fi am coordination moo fi amutoon kenn ku ne da ngay da ngay da nga doon xam yaay yaay xam nooy toje sa bopp janax loolu nag joxlutul ab liggéey même ci département bi yëpp sax parce que département bi kenn coordonné wu ko kenn ku ne maire yi dañuy ay jàmbaar mais kenn jàppalewu wu leen ci dara. Mm-hmm. te normalement comité électoral départemental dafa waroon a am coordonné département bi yëpp di yégoo ñëpp ku am problème ñu mën a solutionner problème boobu mais malheureusement kenn kenn kenn kenn coordonné wu département bi yëpp. loolu nag ci Touba la gën a feeñee Touba ñun ñi fi doon liggéey ñëpp kenn ku ci muy ci ci ci moyen logistique financier. dara kenn coordonné dara kenn xamul fuñ deflee kenn xamul fu mu kenn ku ne da nga doon jóg di wut sa yëf bopp ak noo ko mën a wutee pour liggéey sa liggéey bopp loolu nag doxalul ab liggéey parce que loolu moo waral man jàpp naa ne loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax résultat bi amee voilà. léegi solution ñu daan na ni waaw solu solution bi ñu bi ci jëkk daal man li ma gis mooy il faut que parti politique yi rawatina parti au pouvoir euh, lu mel ni élection bu ñëwatee ci état à commencer par investiture yi ñuy concerté wu ak base bi base bi bala bala ñoo tabbu ñu concerté wu ak base bi liggéey bi itam ñu ciy waxtaan ak base bi parce que fii problème bi ñu gën a am bokk na ci loolu mooy waxtaan moo fi amul kenn taxaw fële yor baat bi yor alal ji di def lu ko neex nga xam ne kum ku doonul waayam sax doo gis alal doo du wax ak yow loolu nag wax dëgg yàlla doxul ab loolu moom kon li li ma doon liggéey bi daal mooy ñuy concerté wu ak base bi créer euh, structuré structuré wu au niveau du département ba nga xam ne waxtaan dina fi mën di am ñuy diisoo di waxtaan di yëpp leen loolu